mbokku jullit yi jaamu yàlla yi ñoo ngi sant yàlla su wa taala suñu borom di wax ne mboolem cant ñel na ko moom yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi sàkku ci moom yàlla ndimbal ñoo ngi sàkku ci moom njéggal ñoo ngi muslu ci moom suñu mbon mboni bakkan di muslu ci moom suñu ñaaw teefi jëf di wax ne képp ku yàlla jubal ci tawfiqam amul lenn la mën a dëngal waaye ku yàlla subhaanahu wa taala dëngal ci maanu teem amul lenn loo xamante ne mën na laa jubal di seede ne amul ku ñu jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala moom dong duñ ko bokkaale ak leneen waaye di seede ne kii di muhammad sallallahu alayhi wa jaamu bi yàlla la yàlla moo ko yónni def ko mu dib yonent ginaaw loolu mbokk yi ñoo ngi dellu si di continuer suñu keppaaru weeru koor muy sharha aka firi aka leeral majalis ramadan gisuñu cheikh cheikh saalixul fawsaan yàlla na ko yàlla wattu tamay ko wérgu yaram tey mu nekk jataayu fukkeel ak juróom ñaar di guddig àllarba di fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذا بيان خطر الشيطان على بني آدم لأنه تعهد لربه بقوله لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا تي لنحن مميجتا يتيبي الشيخ بي من كوي وخكيلو أجوتي دانج بي نحمنتني شيطاني أمنكوتي دوم آدم أك yàqal goo xamante ne nii pare na ngir yàqal ko li nga xamante ne moom mooy doomu aadama yàqal boo xamante ne nii seytaane pare na ko pour yàqal doomu aadama ak danger boo xamante ne nii am na ko ci dund doomu aadama bi ndaxte kii di seytaane dafa ñaanoon yàlla subhaanahu wa taala ne ko yow suñu borom la in axartani ila yawmi alqiyaama la axtamikanna durriyatahu illa qalila seytaane bi ko yàlla subhaanahu wa taala dàqee ci yërmandeem muy iblis dafa ñaanoon yàlla subhaanahu wa taala pour yàlla yéexe ko bàyyi ko bañ kaa mbugal ba kero yowmal qiyaam mu xool yàlla subhaanahu wa taala day ne ko bis boo ma booma boo ma boo ma bàyyee ci àdduna yéexe ma ba yowmal qiyaam dinaa sànq ñu bëri ci sa jaami te mooy doomu aadama yi dinaa leen nuural ci ak réer ak ngëlëmte ñu sori li nga xamante ne moom mooy sa njub ba mu des ñi nga xamante ni ñu néew lañ yàlla ñu yàlla boole ci ñu néew ñooñ loolu la seytaane ñaanoon yàlla subhanahu wa taala te wa dhalika lamma yara min alayhi خير آدم عليه السلام أو لذريته المسلمين المستقيمين فهؤلاء ليس له عليهم سلطان تإلا قليل تموي من نيو نيو موي نيغا خامتيني ني ñoo ñoo nekk ay jullit ci ñi nga xamante ne moom mooy doomu aadama yi topp njubug yonent yi topp li yàlla subhanahu wa taala santaane ñooñu seytaane amu ci ñoom pouvoir ba di leen yàqal inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun illa man ittabaaka min algaawin yàlla subhanahu wa taala tontu seytaane ne ko ñii di sama jaam yi nga xamante ne ni ñoo ma topp topp sama njub di sama jaam yi sell yi amoo ci ñoom pouvoir amoo ci ñoom doole ba di leen sànq di leen dëngal waaye képp ku la topp day ëllëg man yàlla subhanahu wa taala dinaa ko دوغل فيغا خامتاني موم موي سفرة تاتيناكو بوغل فهناك طائفة من بني آدم يلعب بهم الشيطان ويحاول إضلالهم وإغراءهم بالمعاصي والمخالفات أما كوريل تي دوم آدم يو خامتاني الشيطان دي لندي فوي الشيطان دي لندي فوي دي جيما دي لن جيما تابل تي موي أي موي يالا دي لن سانك دي لن toppaloo li nga xamanteni mom moy ay bakar ak li nga xamanteni ne ay moy yàlla subhanahu wa taala ak wuute li nga xamanteni mom moy ndigal yàlla subhanahu wa taala walakin allah subhanahu fataha lahum bab tawba wal istigfaar way ànd ak lolu ñi nga xamanteni ne nii xaw nañoo topp ci tout sax yàlla subhanahu wa taala ubbil na len li nga xamanteni mom moy buntu tuub ku ci top shaytan tàbbi ci moy yàlla bo delu see jublu ci yàlla tuub yàlla subhanahu wa taala jegal say bakar والصلوات الخمس فهذه تغسل كل ما يكيده إبليس لهم يالله سبحانه وتعالى دفعل لنين جل نيو لو خامتيني ني موم مو لين دي رخص تي ابليس لين لين دي تابل تي اي نجومتي اك تابي تي اي مو يالله سبحانه وتعالى تموي جولي جوروم جولي جوروم سوكو ديفه ميغي ملني تي بيس بي سانغو با سيت تي بكار ييغا خامتيني اك تي فخه يو بون ييغا خامتيني ابليس اك شيطان ميغ لا تي تابل فالمسلمون المستقيمون اعتاهم الله المنع من هذا العدو وحصنهم بذكره وبالاستغفار ñii nga xamante ne moom moy julli ñi nga xamante ne ñoom ñoo tënku ci siraatul mustaqim jaar ci yoonu yàlla wi yàlla subhaanahu wa taala defal na leen loo xamante ne ni moom mooy teey lii nga xamante ni moom mooy seen noon muy iblis du mën a yegg ci ñoom yàlla subhaanahu wa fekk na leen sori leen li nga xamante ne moom mooy ayu ak pexe li nga xamante ne moom mooy iblis te loolu moom mooy tudd gu ñu tudd yàlla subhaanahu wa taala di jàng alquran ak di tudd yàlla di def ñaani suba yi ñaani ngoon yi ak ñaan yi nga xamante ne moom moo rot ci sunna yëpp waye ak li nga xamantene mom moy jéggalu di delu ci yàlla subhanahu wa taala innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu yàlla subhanahu wa taala neena ci alquran iblis ñi nga xamantene ñom la manal dara am pouvoir ci ñom moy ñi nga xamantene ñom ñoko def ay alliés te moy ñi nga xamantene mom moy mooy soldaari iblis ak ay jaamam di top iblis wa yattabicuunahu fa haulaai istaxwada alayhim alcheytaan fa andahum dikra allah gaa yi nga xamante ni dañu def iblis ay alliés te moy dañu tan yoonu shaytané seytaane di leen fowe ñu topp seytaane ñooñu la seytaane noot ba fàttaloo leen li nga xamante ne moom mooy tudd yàlla subhaanahu wa taala seytaane da leen noot fàttaloo leen li nga xam ne moom mooy tudd yàlla te buñ tuddi yàlla rek mooy seytaane noot na leen waaye boo tuddee yàlla dellu ci yàlla subhaanahu wa taala di def say adkaaru sabaax ak masa di jàng alquran taqoo jàng alquran seytaane du la jige fenn te du la mën a not walakin ida taabu wastaghfaru raja'u ila rabbihim waaye bu ñu توبة سكن جيجل دلو تسين برم يالله سبحانه وتعالى دلين دي جقل فمحى ذنوبهم وغفر لهم سيئاتهم يالله سبحانه وتعالى دلين دي إفاسل فرال لين دي نحمد ممي سيني بكار دلين دي جيجل لين نحمد ممي سيني نياو تيفي جتون تبي ليس له سلطان إلا على الكفار كون شيطان أمول كتن لدو تنين نحمد ممي يفري وأما عصاة الموحدين فإن الله يغفر لهم ما يكون من سيئات waaye ñi nga xamantene ni ay julit lañ waaye dañu tàbbi ci ay moy yalla lek lek ñi tàbbi ci ay moy yàlla waaye ñu gëm yàlla la ñuy wétal yàlla bu ñu delloo jéggalu yàlla subhanahu wa taala rek yàlla subhanahu wa taala faral leen seeni bakkar bàkkaar jéggal leen seeni ñaawteef bi maana annahu yulhimuhum al istighfar mu yàlla subhanahu wa taala da leen di baxé li nga xamantene ne moom mooy istixfar te mooy di jéggalu yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala di leen jéggal faqad yatubu alayhim subhanahu min indahu min fadlihi wa ixsaani yàlla subhanahu wa taala da leen di jéggal ci ngëneelam ak rafetal goo xamante ne nii da koy rafetal jëme ci jaama mi maa daamu annahum muminuuna muslimun feeg ñoo ngi nekk ay jullit di gëm yàlla subhanahu wa taala nekk ay jullit yàlla subhanahu wa taala bu ñu jéggaloo dellu ci yàlla subhanahu wa taala yàlla jéggal leen faral leen seeni bàkkaar فالمسلم والحمد لله عنده سلاح يقاوم به الشيطان وهو الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كن جلد بي أمنا نغناي لو أم دول لو خمنتيني موم لاي جاكارلو اك شيطان تموي جيغلو يالله سبحانه وتعالى بري لو مي ديف اي استغفار اك دي توب أجدي دلتي يلا سبحانه وتعالى فهذا سلاح يحصنه من إبليس لونه نغنى إلى لو خمنتيني موكي آر تموكي فك با إبليس دو كمان الدرة ولكن إذا إذا غفل المسلم عن ذكر الله أو انشغل عن ذكر الله فإن الشيطان يجد له فرصة وثغرة يدخل منها ويجلد ببسبو ساقني باي بوبم du tudd yàlla subhanahu wa taala bu yeewoo du def li nga xamante ne moom mooy ñaanu suba yi du def ñaanu ngoon yi buy dugg duus du wax ñaan yi ñuy wax buy dugg duus buy dugg këram du def ñaani suy tëdd du def ñaani ñu war a ñaan daal di sàggan daal di sori li nga xamante ne moom mooy tudd yàlla subhanahu wa taala bañ di ko bañ a def seytaane day am ci moom bunt am ci moom occasion am fu mu jaar ngir lor ko ak yàqal ko fa ida taaba almuslim wastaghfara marra thaniya fa inna allaha yamu dunubahu wa yaxfir lahu sayiat waaye jullit bi nga xamante ne tàbbi na ci loolu bis bu tuubee bis bu tuubee dellu ci yàlla subhanahu wa taala jéggalu yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala dina ko faral ay bàkkaaram dina ko jéggal ay ñaaw téefam yépp wa baabu tawba maftuxun bi nisba li kul muslimin ila al gargara lii di buntu tuub yàlla subhanahu wa taala da ko ubbil jullit bi ba keroog muy dee feeg jullit bi nekkul ci sukuraat nga xam ne dee rek ko dese heure bu tuubee yàlla subhanahu wa taala jéggal ko ay bàkkaaram faral ko ay kon jullit bi na bëri lu dellu ak tuub di delu ci yàlla subhanahu wa taala fek sa ruh gi nekkuñu di ko rocc ci sa yaram xamal ne heure bo toubé mu dëggu ci yow yàlla subhanahu wa taala jéggal la kon yërmande yàlla lu yaatu la julit bi warul ñàkk yaakaar ci li nga xamne mom moy yërmande yàlla subhanahu wa taala tablughu tablugu al-gharghara wa bi yani julit bi fek ruham nekkuñu di ko rocc ci yaramam rek heure bu toubé yàlla subhanahu wa taala jéggal ko wa binisba lil umma ila qiyaami saa wa baabu tawba maftuux waaye lii di xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla da leen ubbil ci mbolam xeetu yàlla leen ubbil li nga xamne mom moy buntu tuub ba kër yowul qiyam kon lolu lu reey reey lu yàlla subhanahu wa taala defal xeet wi la wa babu tawba maftuh la yughlaq hatta tatlu'u ash shams min maghribiha magribiha akhiru saaca aaxiru calaamaati khuruj ash-shams min maghribiha li di buntu tuub gis ngeen yërmande yàlla nim yaato li di buntu tuub yàlla subhanahu wa taala du ko tejj fek li nga xamne mom moy jant bi xëyuñu mu daldi fenke fi nga xamante mom moy saw te loolu mooy bu àddunay tukki bu àddunay tukki te bokk na ci mandar mooy mandar ba mandarga bi gën a rëy te mooy mandarga bi mujj tamit ci mandarga yi taxaw ak yowmal xiyaam muy àdduna bi buy tukki mooy ñu xëy jant bi yàlla bu ñu bu ñu fi fekk jant bi fenk fi nga xamante ne moom mooy saw parce que jant bi fi mu war a fenk suba teel nga xëy mu dem génn ci beneen côté bi xamal ne loolu àdduna bi lay tukki kon feeg loolu amul xamal ne buntu tuub lu yàlla subhanahu wa taala ubbi la heure bu jàmm bi tooñee yàlla subhanahu wa taala dellu ci moom yàlla subhanahu wa taala dina ko jéggal alhamdulillah almuslim ala xayr wa indahu forsa wa indahu mahla wa indahu silah yuqaawimu bihi hada aladu wallahu jalla wa ala lahu حكمة fi خلق iblis min ajli an يحاول منع almuslimin an yasuddahum an ذكر الله فيقاومونه بالاستغفار والتوبة فيغفر لهم ويفلس إبليس معهم شيخ من يكون جل بداية سنت يا الله سبحانه وتعالى خمني أب جل من كيو يا الله سبحانه وتعالى كيو يو لكن لدف لدف جل بي وعنده فرصة يا الله سبحانه وتعالى أب لكو إبنت دفل لكو أكاسيون ما ينكو لينغ خمن تنا مموي أب دير بوا خمن تنا ني جوه نكو تنجان ناي لو جامار لو أك نونم بيجنري إبليس ndaxte yàlla subhanahu wa taala bokk na ci xereñte gi tax mu bind li nga xamante ne moom mooy iblis te mooy iblis fexe ba soril li nga xamante ne moom mooy ñi li nga ne moom mooy tudd yàlla ak jaamu yàlla ak topp yàlla subhanahu wa ak yoonu jub waaye yàlla subhanahu wa jox julli ñi ngànnaay loo xamante ne nii ci la jaamaarloo ak iblis te ngannaay loolu moom mooy istigfaar mooy di wax astaghfirullah wa atubu ilay te mooy jàmm di sang boppam ci istighfar di jéggalu yàlla subhanahu wa taala ngir yàlla faral koy bakkaaram waaye aka tuub aka dellu ci yàlla subhanahu wa taala te mu nekk lu dëggu ci moom ngir yàlla subhanahu wa taala jéggal koy bakkaaram waaye ngir iblis pert dellu du mën a sànq li nga xamante ne moom mooy jaami du am dara ci moom wa ida daxalu fi xisni llah wa manaati llah fa innahum laysa li iblis alayhim sultan wa hada min fadli fadlillahi azza wa jal cheikh bi mu ne jaam bu duggee ci wattuk yàlla subhanahu wa taala te mooy di saxoo tudd yàlla aka istixfaar di def azkaar yi ak lii nga xamante ne moom mooy wattoog yàlla nga xam ne moom la yàlla subhana taala di wattoo jaam yi ak di leen wattu ci seen noonu boobu di iblis cheikh bi mu ne buñ defee loolu iblis du am ci ñoom benn kattan ngir réere leen nee na loolu ngëneelu yàlla subhanahu wa taala gu mu defal jullit ñi laysa li iblis bihi bihim tama fi an yudillahum loolu bis buñ ko taqoo iblis du leen mën a réeral te du leen sax xalaata wal wala mu leen di bëgg a réeral ndaxte xam na ne jaam yooyu ñi ngi ngànnaay lu foor loo xamante ne nii moo ëpp doole iblis te mooy istixfaar ak di tudd yàlla subhanahu wa taala lakin yabtarihum bilmaasi wa amma an yasrifahum an diinihim wa aqidatihim falan yastatia dalika bi idnillah cheikh bi mu ne iblis dina natt jullit ñi tàbbaleen ci ay mooy yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg yenn jullit ñi ak sori leen léeg-léeg li nga xamante ne moom mooy njubug yàlla subhana taala ak ay ndigali yàlla subhana taala waaye mu sori leen seen diine carrément ak seen pas-pas ñu wàcc ci yonente bi saa sallam carrément mu sori ci julli ñëpp iblis mënul loolu ci kattanu yàlla subhanahu wa taala innama yatamakkanu min al kuffar waaye ñi nga xamante ne day am ci ñoom kattan man leen a jaarloo fu ko neex nee na moom mooy yéefari iblis da leen di not def leen ay soldaaram not leen jaarale leen fi nga xamante ne مم مونيخ إبليس فالحمد لله هناك حسن إذ لاذ به إذا لاذ به المسلم سلم من عدوه شيخ من كن أمنا لقواي بوها من جنيني جلد بي بسبوك لا يا الله سبحانه وتعالى دينكم مسل تي نونم بوب مي إبليس تموي دي تودي الله سبحانه وتعالى أك دي جيقلو أك ديالو تي يالا سبحانه وتعالى والله سماه الوسواس الخناس yàlla subhanahu wa taala dafa tudde iblis ci alquran al waswaasul xannaas te mooy kii dugg ci xoli jaami di leen jax-jaxal di leen jax-jaxal di leen soril li nga xamante ne ni moom mooy li nga xamante ne ni moom mooy njubug yàlla subhanahu wa taala ida gafila al muslim an dikrillah fa innahu yuwaswisu lahu al xannaas kii nga xamante ne moom mooy xannaas te moom mooy iblis nga xam ne moom mooy jax-jaxal jaam bi ngir di ko tàbbal ci ay mooy yàlla ak sori yàlla cheikh bi nee na jaam bi bu soolee li nga xamante ne nii moom mooy tudd yàlla subhaanahu wa taala ak di jéggalu yàlla subhaanahu wa taala iblis sawar ñëw di dugg ci moom di ko jax-jaxeel ak di ko jaxasee li nga xam ne moom mooy diineem ak li nga xamante ne nii moom mooy diineem ida dakara al muslim rabbahu in xanas wa btaad anhu jaam bi bu tuddee yàlla subhaanahu wa taala di saxo li nga xam ne moom mooy zikrullah te mooy di def azkaar yi rot ci sunna iblis ak di taqoo li nga xam ne moom mooy jàng alquran iblis da koy sori iblis du نك تجتا يجنب من وايد كيسري فهذا من فضل الله عز وجل شيخ من اللولو دفا نك تي ليغا خامتيني دفا بوك تي ليغا خامتيني موم موي غنيل يالا سبحانه وتعالى يروى عن ابليس انه قال اهلكت بني ادم بالذنوب وقطع ظهري بالاستغفار شيخ من بوك نتي لي نيتلي تي ابليس نينا ابليس دفا وخني الكنا دوم ادمه تي ديكو تابال تي ليغا خامتيني موم اي موي يالا اك اي بكار waaye nee doomu aadama day alak na ma ay istixfaar yi nga xamante ne doomu aadama bi da koy def kon li mu bëgg a wax fi moom mooy ne jàmm bi lu mu gën a bëril ay istixfaar ak di tudd yàlla subhanahu wa taala iblis da koy sori waaye bis bu soolee li nga xam ne moom istixfaar rek ci la ko gën a mën a jekkoo ngir tàbbal ko ci li nga xamante ne moom mooy ay mooy yàlla subhanahu wa taala loolu moom moo tax a jóg iblis te moom mooy fexeel doomu aadama ak soriloo ko li nga xamante ne ni moom mooy tudd yàlla subhanahu wa taala waaye li war jàmm bi moom mooy mu bëri lu muy wax aoudu billahi min asheytaan rajim nee na jaam bi dafa war di muslu ci seytaane lu bëree bëri wa ila fa innahum ala xatar nee na bu ko deful rek nee na mi ngi ci danger ci te lii nga xamante ne moom mooy ab noonam di seytaane mën na koo jekku saay su nekk ndaxte noonam boobu noonu mi ngi koy xaar ci côté bu nekk ngir tàbbal ko ci li nga xamante ne moom mooy lu koy lor te mooy mooy yàlla ak i waaye ngir sàggan loo ko ngir mu sori li nga xamante ne moom mooy tudd yàlla ak di jéggalu yàlla waaye ngir alak ko ak soril ko li nga xamante ne moom mooy yërmande yàlla cheikh mu ne walhamdulillah an allah jalla wa ala jaala lil muslimin xisnan yaluuduuna bihi min hada na sant yàlla subhana taala bi mu defalee jullit ñi ab làqukaay goo xamante ni dañ cay làqu ngir seen noon boobu di iblis du leen dara te mooy jullit bi làqukaay googu mooy lan jullit bi mu bëri lu muy tudd yàlla subhana taala yàlla li ca jiitu mooy jàng alquran li gën a fort yàlla mooy jàng ak di taqoo say adkaaru sabaax masa bañ di bàyyi julit bi bu toogee deful dara muy tudd yàlla subhanahu wa taala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa huwa dhikrullah subhanahu wa taala wal istighfar wa tawba aka dellu aka tuub di jàng alquran di taxawal li nga xamante moom mooy julli juróom nee na loolu mooy li gën a rëy ci li yàlla subhanahu wa taala di musal jaam bi غير شيطان بينك من الدرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يعصمنا من هذا العدو اللدود وأن يحفظنا من كيده ومكره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين